dëgg yàlla ñu bokk ak yéen d'abord euh, naqar bi euh, métit bi ñu bokk kook yéen d'abord waxuma si mais mi ngi sama xel su ma génnoon tamit si laa naroon jublu si laa naroon jublu incha allah xool ko tamit ak police ak gendarmerie mais xool ko également ak procureur ah, naka lañ si mën a def daal pour baral donc recherche yi service boo xam ne laa na si recherche yi nañ si baral ngeen defal ñu si ñaan mais te teewul tamit di xam ne mbirum état la muy recherche koo xam ne vraiment dafa réer Euh, dinañ ko def incha allah man loolu moom su ma génnee naa si jokkoo ak procureur ñu gën a xool nax la ñuy baralay laal ah, mbir mi waaw ñaan yàlla vraiment ñu gis leen parce que tamit su tey xale yu ndaw moom dëgg yàlla <laughs> euh, waaw